boo xam damay taxaw rek ndox mi di ma yóbbu ndox mi. nee nañ moo geet moo la wax. moo geet nee na damay may oto. ba pare moo geet moo la daggal billet ci Gambie bi. moom moo geet moo ma jëf te bu leen fàtte nag bu ñu jullee ba pare mag Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour lay ma jëlal avion dugalal ma ci sama nit ñëpp waaye li ma jaaxal li may liggéeyal am na ñu ci amul passeport xanaa ñu jël oto. te yàlla rek tax moo geet dama jëlal billet avion jëlal ma hôtel Youssou Ndour Ndour moom laa war a taseel ca Youssou ca ca Gàmbi ci kàttanu yàlla bu ñu fa jugee nag ña ngay ànd ak Kéba Seck France def tout le monde yàlla nee na waaw ku déet dangay sonn xale yi maa yóbbu nañu leen xale ba voyage ngeen maa def leen attaché votre ceinture Tidiane suba jot passeport am. xale yi ku bëgg a dem na ma woo. waaw am na bu ngeen ci dawee di ngeen am gàcce ñi <laughs> ma yóbbu ne nee nañu daw. waaw diggante Gambie ak Sénégal. walaay méttiwul ne. oui walaay bi nee nañ ne maman bi nga am nga passeport ba. maman di amut. aywa dimbali leen ma ci passeport. tubaarikàlla moment boo bëggee passeport danga koy am. waaw ndax man la maam Ndiaye Savon la ñuy nooyee. dëgg la sama waa jooju waa daaf. dëgg la du ma fàtte di leen tudd. <laughs> waa bureau passeport man rek ngeen bëgg. dëgg la madame Faye Sall man la bëgg. la madame Faye Sall samedi la fi war a ñëw. waa politiciens yi politique ñu nag tubaarkàlla madame Faye Sall leen day ñëw jëndal xale yu Pikine jëndal dàllu Pikine dimbali waa gox bi ca yàlla rek tax madame Faye Sall day ñëw samedi ji fàttaliku loolu. day jënd ci. foire bi nag bagage yi ñëwagul naa passeport maam Ndiaye Savon dina ma defar bureau de passeport utal ma passeport.